Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm yeen ñëpp di leen ñaanal yàlla Subhanahu wa taala jàmm dafa am sunu gan bu ñu war a invité fii léegi muy Cheikh Alpha Tah ko bëgg a invité fii am laaj yuñ ko laaj e, du yàgg incha allah tuuti rek ci affaire tawhid allah kon mën nañ arrêté audio yi ñu déglu ko incha allah maa ngi dugg léegi ak moom incha allah jëjëf maa ngi maa ngi koy ñaan si moom mu dugg mu nuyoo rek allah ñu ma jox question yi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه فضل يا شيخنا إسماعيل أبا نعم أنا جاهز بسم الله بسم الله برنا السلام عليكم ورحمة الله شيخ ألفا كا آه، جرجف آه، كن ينجل جاجف إن شاء الله إن آه، يعني الله سبحانه وتعالى مؤبر لسلام من جفل يبارك سلقه نرى وقتنا إن شاء الله Cheikh Alpha dañu bëgg a waxtaane tey mooy mbirum tawxiid tawxiid nga indi leeral ci taarifu tawxiid boo pare ñu dem ci deuxième question bi incha allah kon temps bi incha allah vingt minutes rek lay doon parce que cheikh bi nee na dafa am yeneen alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala lii di tawxiid boroom xam-xam indi nañ ci ay taarifaat yu wuute am na ñu ne moom mooy euh, ifraadullahi taala bi ma yaxtasu bihi moom mooy ñu kennal yàlla borom bi subhaanahu wa ci mbir yi nga xam ni moom moo ko jagoo euh, ñeneen ñi ku ci mel al cheikh Muhammad ibn Abdul Wahab mu dafa ne huwa ifraadullahi taala bil ibada ca usulu mooy wéetal yàlla ci ay jaamu ñeneen ci borom xam-xam yi Euh, taarif boobu Bun Baaz tudd na ko Uthaymin tudd na ko Ibnul tamit tudd na lu mel noonu ñu ne moom mooy ifraadullahi taala euh, bi rububiya wal wa sifaat moom mooy kennal yàlla borom bi subhaanahu wa taala ci ay turam euh, ci subhaanallah ci ay jëfam ak ci jaamu yuñ koy jaamu ak ci ay turam ak ci ay melokaanam euh, waaye bu ñu xoolee bi nga xamante ni moom mooy xam li xam la tawxid lu ci mel ni ifradullahi taala bi ma yaxtasu bihi boobu mooy bi nga xam ni moom mooy euh, bu gën a bu gën a xaw a caamil mooy kenn yàlla ci li nga xam ni moo ko jagoo comme yàlla loolu day dugg jëfu yàlla da ciy dugg Euh, jaamu ñuy jaamu yàlla ci dugg tur yàlla ak i melokaanam da ciy dugg ibn abdul wahab boo xoolee définition bu mu jeexee ifradullahi taala bil ibada mooy kennal yàlla ci jaamu ñu koy jaamu loolu boo xoolee euh, taarif euh, taarifu tawxidul uluhiya la gën a jege moom mooy xamale bu ñu xamale tawxidul uluhiya waaye cheikhul islam ibnu taymia rahimahullah xamal na ko ci ibaara bi nga xam ne adaq mu ne an laa yashrakahu fi l ashyaai shay'un min al ashyaai shay'un huwa min xasaisihi mu ne ñu bañ ko boole ak mbir yi dara ci loo xam ni moom moo ko jago bépp mbir boo xam ni borom bi moo ko jago ñu bañ ko see boole ak dara comme ci gàttal lii mooy li nga xamante ni moom mooy taarif at tawxid euh, jërëjëf Cheikh Euh, leer na kon lan mooy tawxiid kon comme ni nga ko waxee euh, leer na ci ñëpp euh, li ma bëgg xam mooy ak nga wax ñu su fekkente ne tawxiid dafa am ay xaaj nga leeral ko incha allahu ci audio benn bu fekkee am xaaj après nga continuer wax def yeneen audio def xaaj yi ban ak ban la nga leeral ko ba mu leer léegi dama lay bàyyi nga nga nga nga dugg ci bunt boobu fekkeen tawhid ay xaaj la nga wax ko léegi nga wax yenn xaaj ñooy am ci tawhid aqsam tawhid euh, nga wàcc incha allah euh, mën nga ko def ay audio yu ki moom ndax mu bañ a bañ a daal def ko ci trois wala quatre audio euh, wala ojo Cheikh Alpha balaa ngay laaj tontu sama deuxième laaj jëlal bi ba pare est-ce que baatu tawhid sax na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sunna waaw nga leeralul ba pare nga doog dem ci aqsamu tawxiid yi waaw Cheikh Alpha li ma laaj mooy su fekkee ne baatu tawxiid sax ci sunna nga leeral ko incha allah loolu mooy sama deuxième question. naam alhamdulilah baatu tawxiid question bi question bu am solo la ndax ñii di ahlul bidaa ñi nga xam dañuy. jarx ñoom ibnu taymiya ak ñoom ibnu abdul wahab dañuy wax ni ñoom ñoo créé baatu tawxid waaye yonente bi sallallahu alayhi wasallam musu koo tudd saxaaba yi musuñu koo tudd ñoom dañuy wax loolu euh, bu njëkk ñu xamal leen ni lii di baatu at tawxid sax na ci làmb ñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam euh, bu si njëkk ci loolu firnde yi moom mooy boo boo demee ci musnad euh, imam ahmad imam ahmad mu ngi jëlee ci amr ibnul aas mu ne ko amma abuka fa law kaana aqarra bitawxid fa tasaddaqta anhu wa sumta la balagahu dalik ci beneen riwaay mu ne la nafaahu dalik mu ne ko yow amr de sa papa bu nekkoon ku saxaloon tawxid ku doon wéetal yàlla nga daal di saraxe yéene ko walla nga woor yéene ko ko loolu dina àgg ca moom comme gis nga yonent bi salaa sallam fii tudd na baatu tawxid mu ne amma abuka falaw kaana aqarra bit tawxid mu ne sa papa bu nekkoon ku saxal tawxid nga saraxel ko yéene ko ko nga saraxel ko wala nga woor yéene ko dina àgg ca moom xadis bi ñëw na ci ay am na yeneen shawahid albani waral na ko ah, ak ki nga xamante ne moom mooy alxaafidu alxakami beneen bi bii benn la yonent bi salaa salaam comme fii tudd na fi baatu tawxid beneen bi ñoo na si mustaxraj bu abu awaana keneen tamit ahmad shakir tamit wëral na xadis bi mu wax nii ñoo na ci mustaxraj bu abu awaana yonent bi salaa salaam mu ne yadxulu qawmun min ahli tawxid annaar mu ne dina am ay nit ci waa tawxiid yoo xam ne dañuy dugg safara mu ne summa yudrikuhum rahma fa yadxuluuna aljanna ci yeneen riwaayaat mooy dañuy génn dañuy génn yërmande yàlla moo leen di dab ñu génn fa daal di dugg aljanna yonente mu ne am na ci nit ci waa tawxiid yoo xam ni dañuy dugg sawara yërmande yàlla dab leen fa ñu génn dugg aljanna ko yonente salaa sallam fii dafa tudd tawxiid ne na am na ay nit ci waa tawxiid moy ñan moy ñi nga xamni amon nañu tawhid manam musuñu bokkaale yalla waye dañ daan tabbi ci ay bakkar yi mag di sagane digle yi ñoñu lañu wax ni ñoo nek taxtal machia ñoñu buñu ñu borom bi bu ko nexé jéggal leen waye bu ko nexé laq seen bakkar ci sawara waye duñu sax sawara dañuy gennat mo tax yunus sallallahu alayhi wasallam ñoñu wa tawhid la leen tuddé yadkhulu qawmun min ahli an-nar ko da ci jëlé jëriñ ni euh jëriñ bu mu am moy ku ci faatu donte yaa ngi doon mooy yàlla sax boo duggee sawara doo fa sax da ngay génnaat comme ñaari bërëb yi yonent def sallallahu alayhi wasallam tudd na fi li nga xam ne moom mooy baatu tawxid beneen bi moom mooy ci li nga xamante ni moom mooy musannaf bu Abdurrazaq ak Ibnu Maaja yaay aisha radiyallahu anha mu ne anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam ida arada an yudaxi ishtara kabshayni adimayni fa dabaxa ahaduhuma amman shahida allaha bitawxid wa li nabiyihi bil balaax mu ne yonente bi salaa sallam bu demoon bay waaja tabaski bu tabaski jotaan day jënd ñaari xar ñaari kuy yu mag mu ne benn kuy bi da koy rendil yéene ko képp koo xamante ni ah am na tawxid saxal na tawxid seede ni moom yonente bi jottali na comme yaay Aïcha fi ci hadith bi ni gis nga ni yaay Aïcha tuduna batu at tawhid comme riwaya bi ñew ci euh, ci ibnu majah tuduna lolu ñettel moy jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ba muy wax di tuddu ci li nga xamanteni ni moy euh aju yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne salaa sallam fa ahalla nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi tawxid yonent bi salaa sallam ba ñëwee ca fa mu war a armale mu ne labbayk allahuma labbayk la sharika lak labbayk inna alhamda wa nicmata lak wal mulk la sharika lak jaabir mu ne yonent bi salaa sallam di armale lii nga xam ne mooy tawxid ndax baat yooyu baatu tawxid la comme jaabir saxaabala la tudd na tawxid jaabir ba léegi muy nettali aju yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa ba mu ñëwee daal di tawaaf kaaba juróom-ñaar daal di dem maqaam ibrahima mu jàng wa taxidu min maqaami ibrahima musalla mu ne fa qaraa bi tawxid wa qul yaa ayyuhal kafirun ñu ne ba muy julli ñaar ci maqaam ibrahim la jàng tawxid lu mu nam ci saaru tawxid mooy qul huwa allahu ahad lépp lu ci nekk tawxid la mu ne ak qul gis nga yonente bi limo naa ñaari bërëb yu tuddee tawxid saxaabatul kiram soxnaam bii di Aïcha tudd na baatu at tawxid jaabir tudd na baatu at tawxid ci ñaari bërëb wallahu alam eh, kon jërëjëf Cheikh Alpha xam nañ ne tawxid léegi kon eh, lan mooy tawxid wax nga ko leer na eh, wax nga léegi si sa audio bu mujj bi tamit ne kalimatu tawxid baatu tawxid nekkul comme ni ko ñenn ñi di waxe loo xam ne dañ ko sos ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal nga ñu ne eh, loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rot ci làmminam rot na ci làmminu ñenn ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa eh, léegi defal flash foofu nga wax ñu léegi yan xaaj la tawxiid am incha allah waaw alhamdulillah eh, التوحيد آه، خاج يوم أم آه، برم خم خمي خاج التقسيم الثنائي نين خاج التقسيم الثلاثي أم نيو كدف نيت خاج أم نيو كدف نياري خاج ويب دي بوتي نيك بو نيو دف نياري خاج بي دي أمب نيت خاج آه، بو فكنتني خاج بو نيو خاج توحيد نيت خاج loolu noonu ku ci gën a siiw moom mooy cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullah waaye balaa loolu am na ñu ko njëkk a junju ñetti xaaj yooyu muy lan muy euh, ibnu jarir at tabari ak ibnu manda ci téere boobu di at tawxid comme cheikhul islam taymiya moo ko gën a siiwal mais ñoon jot jot nañ ko junj niko non ibnu abbas radiyallahu anhu jëlee nañ ci mom luy junj xaj tawhid ci rububiyya ak uluhiya moy waxu borom bi subhanahu wa taala wa ma yuminu aktharuhum billah illa hum mushrikun ñu bëri ci ñom duñu gëm lu dul dañuy bokkaale yalla mune gëm buñu gëm moy gëm buñu gëm ni yalla mo sak moy dekil moy ray waaye ànd ak loolu dañ daan bokkaale yàlla ci ay jaamu comme diñ ci déggee ni ibnu abbas comme def na ñaari point ci def na xaaj na tawxid nee na gëm bu ñu gëm comme nangul na ni ñoom wéetal nañ yàlla ci ay jëfam waaye nag mu saxal dañ daan bokkaale yàlla ci ay jaamu comme wéetaluñu yàlla ci ay jaamu comme loolu mun nga ci déggee ishaara la ci xaaj tawxid ci taqsimu ci tawxidu rububiya ak li nga xam ne moom mooy tawxid al uluhiya loolu benn la euh, xaaj bi nga xam ne moom mooy xaaj tawxid ñetti xaaj mooy dañoo xaaj tawxid ci at tawxidu rububiya ak at tawxidul uluhiya ak at tawxidul asma ak euh, tawxidul asma wa sifaat tawxidul rububiya tawxidul uluhiya tawxidul asma wa sifaat mooy wéetal yàlla ci ay jëfam ñaareel bi wéetal yàlla ci jaamu yuñ koy jaamu ñetteel bi wéetal yàlla ci lan ci ay turam ak ci ay melokaanam léegi dinañ laaj ne lan mooy dalilu xaaj bi dalilu xaaj bi dañuy dellu ci ni quraan juñu na ko mooy loo xam ne dañ ko jëlee ci quraan ak sunna moom mooy isti istiqra dañ ko tatabbo ci quraan ak sunna nekkul lu ñu sos waaye dañ ko topp ci quraan ak sunna tayib lu ci mel ni euh, tey ñu ne xaaju njàpp faratay njàpp sunnay njàpp churutul euh, churutu euh, salaa condition wu julli loolu doo fekk fenn foo xam ne Qur'an nee na condition wu julli lii la wala nga fekk foo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee condition wu julli yii la ne la juróom benn la lim benn ñaar nangam déedéet waaye loolu istiqra la ñoom suufiye yi nga xamante ni ñoom dañuy dàq xaaj tawxid da ngay fekk seen téere fiq yi mu fees fa dell ñu naan la churutul xajj arkaanul xajj churutu sola ah di wax di xaaj ay mbir aqsaamu aqsaamul miyaah da ngay dégg ñu koy wax xaaju ndox yi almaau tahur almaau tahur almaau tahir almaau najis da ngay fekk ñu koy xaaj waaye loolu est ce que amal nañ ko dalil ci xaaj boobu quran fan la ñëwee xaaj ko sunna fa la ñëwee xaaj waaye dañ ko ta tabbu ci quran ak sunna comme bu ñu nangoo loolu ñoom nañu nangu ni tamit tawxid dañoo ta tabbu ñetti xaaju tawxid yi ci quran ak sunna loolu mooy al istiqra moo tax euh, ku ci mel ni suñu ñaari cheikh di al cheikh al usaymi ak euh, al cheikh salih sindi ñu ne al istiqra laa yujidu shay'an jadidan wa innama yubrizu shay'an mawjudan istiqraa nekkul ni day ñëw daldi di ah indi mbir mu bees waaye day ñëw feeñal mbir boo xam ne dafay nekkoon comme lii di xaaju tawxid mu ngi woon ci quran ak sunna mu ngi ñu tënk ci quran ak sunna waaye nag dañoo ñëw daal koy feeñalaat leeralaat ko ba mu leer comme nañu jàpp ni xaaju tawxid yi foofu la jóge beneen bi ñeneen ñi dañoo xaaj tawxiid ñi xam ne dañoo xaaj tawxiid ci ñetti xaaj dañ ko génnee ci quraan ak sunna bokk na ci waxu borom bi subhaanahu wa taala rabu samawati wal ardi wa ma baynahuma faabudhu wastabir la ibadatih hal taalamu lahu samiya moom mooy borom asmaan suuf nang ko jaamu mooy borom asmaan suuf ak lu nekk ci diggante asamaan ak suuf na ko jaamu ndax xamal nga sa borom ku muy maaseel ci ay turam ak ci ay melokaanam comme nu ko ibnu kathir waxe ak ibnu taymiya rahimahullah rabbu samawati wal moom mooy borom asamaan ak suuf borom asamaan ak suuf rabbu mooy alxaaliq wal malik moom mooy moo sàkk asamaan moom moom asamaan comme loolu wéetal yàlla la ci ay jëfam borom asamaan ak suuf wéetal yàlla ci ay jëfam mooy jëfu yàlla bokk na ci bind asamaan ak moom moom asamaan ak suuf mu ne fa abuduhu na nga ko jaamu gis nga moo tax ñu ne tawxidul uh, rububiya tegtal la ci tawxidul uluhiya ginnaaw bi nga xam ne moom mooy borom asamaan ak suuf jaamu ko nag de aju woo nga jaamu ko fa abuduhu jaamu ko gis nga loolu moom mooy wéetal yàlla ci jaamu comme tawxidul uluhiya mu ngi noonu bu njëkk bi rububiya la rabbu samawaati wal ard mooy borom asamaan suuf mooy ku sàkk asamaan ak suuf wéetal ko ci loolu ginnaaw loolu fa abudhu na nga ko jaamoo ginnaaw bi nga saxalee tawxidu rububiya xam ni moom moo sàkk asamaan ak suuf loolu mooy tawxidu rububiya fa abudhu na nga ko jaamu nag gis nga digle bu mu digal nañ ko jaamu loolu mooy tawxidul uluhiya wéetal yàlla ci jaamu hal taalamu lahu samiya ndax xam nga sa borom ku muy maaseel ci ay turam te bépp turu yàlla di ciy génne melokaanu yàlla loolu mooy lan tawxidul asmaa wa sifaat wéetal yàlla ci ay turam ak ci ay melokaanam beneen bi moom mooy ca suuratul fatiha bi nga xam ni ñu ngi koy jàng bés bu ne saa ñuy julli yàlla juñu na fa ñetti xaaju tawxid yi alhamdulillahi rabbil alamin sant ñeel na yàlla borom mbindaafoon yi nee na sant ñeel yàlla sant yàlla loolu la jaamu yàlla la borom mbindaafoon yi kom sant jaamu yàlla la loolu wéetal yàlla la ci ay jëfam loolu tawxiidul lan la tawxiidul tawxiidul uluhiya sant ñeel yàlla sant yi sant ab jaamu la loolu tawxidul uluhiya la rabbul alamin mooy borom mbindaafoon yi moom moo sàkk mbindaafoon yi moom moo moom comme wéetal nga yàlla ci ay jëfam mooy sàkk ak moom loolu mooy tawxidul tawxidul rububiya mu ne arrahman ak arrahim arrahman di tur ci yàlla arrahim di tur ci yàlla ñaari turu yàlla yi ñu génnee ci melokaanu yàlla muy arrahma yërmande loolu mooy tawxidul asma'i wa sifaat mooy wéetal nga yàlla ci ay turam ak ci ay melokaanam comme yii lenn la pour gagner du temps bëri na nag dalaa waaye lii lenn la ci luy tegtale ni tawxiid dañ ko xaaj ñetti xaaj ñu ñëw léegi ci ñi nga xam ne ñoo xaaj tawxiid ñaari xaaj Ah, Cheikh Alpha léegi ah, xamal nga ñu tawxiid eh, am na ñetti xaaj tawxiidul uluhiyya wa rububiyya wa asmaa sifaat léegi es ce que mën nga ñu dikkal ci fi ñu xaajee tawxiid ñaari xaaj fadal ah, tayib alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala comme eh, am na ci tamit ginnaaw bu ñu xaajee tawxiid ñetti xaaj am na ko xaaj ñaari xaaj eh, ku ci mel ni cheikhul islam ibnu taymiya sax na ci moom ak nongom bii di ibnul آه، توحيد دنيا توحيد آه، نياري خالي بس نيك موي آه، توحيد المعرفة والإثبات نياري الموي توحيد القصد والطلب بني توحيد المعرفة والإثبات موي دلو تي نياري توحيدي خمو بني كبو نيانا دنكو خاج نياتي خاج موي ربوبية ألوهية أك أسماء وصفات نيغا خمني نيانا نياري خاج موي توحيد, توحيد المعرفة والإثبات ñaareel bi tawxidul qasd wa talab buñ ne tawxidul maarifa wal ithbaat comme foofu ñu ngi wax ci tawxidul rububiya ak tawxidul asma wa sifaat ndax lii di maarifa da nga war a xam lii nga xamante ni moom mooy jëfu yàlla borom bi subhaanahu wa taala ni moom moo ko jëf ak ay turam ak i melokaanam soo paree nga daal di koy saxal comme foofu dafa junju التوحيد الربوبية والتوحيد وتوحيد الأسماء والصفات ñu ne tawxiidu ñaareel bi tawxiidul qasd wa talab loolu mooy tawxiidul uluhiya mooy nga jaamu yàlla sa jaamu yàlla nga namm ci nga namm ci borom bi subhaanahu wa taala nga sàkku ci borom bi subhaanahu wa taala nga bañ ko defal leneen comme boo xoolee ñaari xaaju tawxiid yi dafa ëmbaat ñetti xaaju tawxiid yi la ndax bu ñu nee tawxiid tawxiidul maarifa wal ithbaat loolu mooy tawxiidul rububiya ak tawxiidul uluhiya mooy nga xam jëfu yàlla borom bi subxanahu wa taala ak ay turam ak ay melokaanam nga daal di koy saxal ñaareel bi tawxiidul qasd wa talab mooy say jaamu yàlla nga daal di ci namm borom bi subxanahu wa taala sàkku ci borom bi subxanahu wa taala comme loolu mooy tawxiidul maarifa wal ithbaat comme loolu mooy tawxiidul uluhiya comme ñaari xaaj yi. wuutewul ba tey ak ñetti xaaj waaye ñaari xaaj yi dafa ëmb ñetti xaaj yu njëkk yi ñu tudd ibnul qayim rahimahullah moom it xaaj na ko ci tawxidul ilmi ak ak tawxidul amali ak tawxidul ilmi moom mooy wéetal yàlla borom bi subhaanahu wa taala ci xam bi ngay xam ay jëfam ak ay turam ak ci ay melokaanam tawxidul amali mooy tawxid bi nga xam ne ci jëf la maanaam jaamu yàlla yi nga wéetal ci borom bi subhaanahu wa taala wallahu aalam euh, Cheikh Alpha ci ci ci wàllu luga euh, boo xoolee baat tawxid bi ci wàllu luga est-ce que mm, mën nañ ne euh, tawxid du doon benn maana rek mën na am ay xaaj yu bari yaani ci wàllu luga rek Euh, fekk waxuñ ci wax wax ci ci ci wàllu istilaa bi ci wàllu luxa bi est-ce que tawhid dana xaaju foofu naam alhamdulillah waaw ci luxa buñ fa delloo dañuy gis ni tawxid tamit day xaaj ndax buñ ne tawxidul tawxidul rububiya rububiya boobu ñu ko jëlee ci baat arab tawxidul tawxidul uluhiya uluhiya boobu ñu ko jëlee ci al ilah muy allah rabb ak ilah ci luga maanaa yu bokkuñu rabb ci luga mooy almalik wal xaaliq ilah ci luga mooy almaabud mooy ku ñuy jaamu rabb mooy almalik wal xaaliq mooy ku sakk ak ku moom ilah mooy ku ñuy jaamu comme maanaa yu du benn ilah boo xoolee dafa ñëw ci zinatu fi'al رب دافا نيو تي زينات فاعل راب كوم دو بن دو بن تي لغه مود الزمحشري تي الكشاف تي الزمحشري نيب خم نني ا دل واي لا تي لغه بو ني جوخ اكزامبل تي تفسير القران باللغه تيرم بي دي الكشاف لا ني جوخ اكزامبل من الاله والمعبود mu ne moo xam ilaah mooy ku ñuy jaamu moo xam nag ku ñuy jaamu ci dëgg la wala ku ñuy jaamu ci neen waaye nag ki ñuy jaamu ci dëgg moom mooy ku noot noonu la ko waxee ci fi nga xamante ni moom mooy alkashaf comme gis nga moom ilaah da koo def mu nekk ku ñuy jaamu waaye def ko mu nekk ku sàkk ak ku moom loolu benn la ñaareel bi su fekkente ni ñoom nee nañu ilaah ñi nga xam ne ñooy ahlul bidaa ilaah ak rabb benn lañ ko def benn maana bañ nekk bi dañ naan la ilaha illa allah ñoom ñu koy fire mooy laa rabba illa allah ñoom tawxidu rububiyya la ñuy file la ñuy firee laa ilaha illa allah loolu nag moo waral nag ñuy bokkaale ci ay jàmm ndax foofu la ñu juumee firi bi ñu firi laa ilaha illa allah ne laa xaaliqa illa allah amul ku sàkk ku dul yàlla comme boo ne amul ku sàkk ku dul yàlla comme yow tawxiid da ko def rek mu nekk ci rububiya tawxiid benn nga ko mooy tawxiid mooy daal gëmal ni yàlla moo sàkk jeex na loolay erreur bi comme fu ñu juumee mooy laa ilaha illallah ilaah boobu mooy ku ñuy jaamu amul ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul yàlla ndax amul kenn ci arab yi ku firee ilaah ne mooy ku sàkk amul comme gis nga comme loolu tax ñuy layal bokkaale ba ñuy bokkaale xam nañu jour bu ñu firee laa ilaha illa allah ah ñu ne amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëkk dul yàlla su boobaa jaamu ñu doon jaamu bàmmeel yi di tawaaf ci bàmmeel yi a ah, ak di euh, dimbali ko ci seen ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen bokkaalekat yi ah comme ak di xettaliku ci ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy bokkaale comme loolu mënuñu ko def moo tax nag faaw ñu layal ko noonu firee ko tawxidu rububiya bañ ko firee tawxid al al uluhiya moo tax arab yi jaahil yi démb ñoom dañ daan bañ wax laa ilaha illallah borom borom bi subhanahu wa taala mu ne buñ leen waxoo laa ilaha illallah dañuy rëy réeru yastakbiruun dañuy rëy ngir wax ko non duñ ko wax parce que xam nañ ni jour buñ ne nangoo accepté laa ilaha illallah xam nañ ilaah mooy ku ñuy jaamu comme dañuy jaamu benn yàlla bàyyi mbooleem yalla yi ñu doon jaamu moo tax wax motax ñu ne ajaala al aliha ilaha wahida xam nañ laa ilaha illallah lu muy firi ba sallallahu bi wasallam ñu wax baatu la ilaha allah amul benn bur bu jaamu ci deug ku dul ñu ne ah dafa bëgg def yalla yépp léegi ñu nekk benn yalla rek bu ñuy jaamu dedet niki nonu borom bi subhanahu wa taala ci bopam dafa takale diggante ak rabb ci suratul nas dafa ne qul audu bi rabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas maa ngi muslu ci ku sàkk nit ku moom nit ñi maliki nnaas ne ilaahi nnaas mooy ku nit di jaamu comme ñoom su fekkee dañoo ne ilaah ak rabb benn la comme ñoom nee nañu borom bi subhaanahu wa taala ci suratu naas daa répété te Qur'an dañ ci dàq bépp répétition boo xam ni amul njëriñ comme ñoom ci seen wax ñu ne rabb ak ilaah benn la ilaah mooy ku sàkk mooy rabb ku sàkk ak ku moom ñu ne ñaari benn la comme dañoo ne borom bi subhanahu wa taala fii dafa répété ndax comme ci seen wax comme yàlla dafa ne qul a'udhu bi rabbi naas maa ngi muslu ci ku sàkk nit ñi moom ni ñi maliki naas ne ilaahi naas ku sàkk nit ñi encore moom ni ñi te Qur'an dañ ci dàq bépp takraar boo xam ne amul njëriñ bépp répétition répétition boo xam ne amul njëriñ ndax répétition boobu amul njëriñ comme ci seen laazim wax ñoom saxal nañ ni borom bi ci suratu naas daa répété kallaahu xaasha borom bi subhaanahu wa taala af saxu af sax lépp koo xamante ni Qur'an moo gën a leer te borom bi subhaanahu moo ñu gën a xam arab moo tax borom bi fii xam na ni rabb ak ilaah du benn moo tax bu tudd rabb qul audu bi rabbi naas malikin nas mune ne nas ku nit ñi di jaamu comme li ci luwa sax dañuy gis takale bi digënté tawxidu rububiya ak tawxidul uluhiya wallahu alam bati di ilah ak rab ñaari baat la yo xamni iza jitamaa iftaraqa wa iza iftaraqa ijtamaa wala nga ne ñaari eh, tur la wala ñaari eh, ñaari eh, tur wala melokan ci borom bi subhanahu wa taala yo xamni dañ na ijtamaa iftaraqa wa idha fta wa idha iftaraqa ijtamaa moy ñom ñaar buñ leen boole tuddu dañuy takliko ku nekk day yor maanaa bi nga bi nga xamni ni moroomam yor ko bu ñu tuddee rabb ak ilah comme ci suratul nas borom subhanahu wa ta'ala ne rabb qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas foofu tudd na rabb ak ilah comme maanaa yi dañuy takliko comme rabb moy ku sak ak mom moom ilah mooy ku ñuy jaamu waaye ida jtamaa ida ftaraqa ijtamaa bu ñu tuddee benn tudduñu moroom ma bu nekk day yor day ëmbaale moroom ma bu ñu nee ilaah kese te tudduñu rab ilaah boobu mooy ku ñuy jaamu kooku ñuy jaamu nag mooy ku sàkk mooy ku moom bu ñu tuddee rabb dong te tudduñu ilaah rabb boobu mooy ku sàkk mooy ku moom kooku sàkk te moom mooy ku ñu war a jaamu ko loolu tamit ñu bàyyi ci xel waaye nag bu fekkee ci maanaa bi la di xool maanaa bi ilaa ak rab bu leen boolee ñoom ñaar comparé leen comme bu nekk am nga signification bokkut ak sa morom hada wallahu alam lii mooy lu ñu tontu ci question bi salaamaaleykum Cheikh Alpha jërëjëf ci leeral yooyu alhamdulilah yàlla na la yàlla subhanahu wa taala yokk xam-xam sàmm la wattu la may la jàmm foo mënut a nekk wax dëgg yàlla la affaire bi leer na xam-xam bi macha allah rafet na Euh, képp koo xam ne bëgg nga jëriñu jëriñu nga incha allah kon ñoo ngi lay sant di la gërëm baax baax di la ñaanal yàlla subhanahu wa taala jàmm di sant mbokk yi xam ne doon nañ déglu waxtaan bi aussi jërëjëf shukran